تركت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لنا ginnaaw bu ñu loon nuyoo xale euh, mbokk yi fi teew di jiital suñu imaam euh, Ahmad Rafahi ak euh, alamit Cheikh Abdul Abdourahman ak inspecteur ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak professeurs yi fi nekk ak jàngalekat yi ñu ngi nuyu leen di leen étudiants yépp muy góor ñi ak jigéen ñi euh, di leen dalal di leen tatagal ci lii nga xam ne mooy daje bu njëkk boo xam ne mooy suñu daje ak yéen ngeen ñu xamal leen ni fii ngeen ñëw tey mooy seen kër ndax yéen a tax ñu tabax ko du ñun euh, ngeen xam ne tamit li leen fi indi ci yéen la ndax juñu nga ko léegi jàng ba ngeen jógee di jàng ba léegi ay at la li tàmbalee ci certificat ba ba ngeen di am BFM ba ba ngeen di am baccalauréat kon ay at la muy diir bu yàgg boo xam ne yéen ngi ko doon di su toog yokkatu leen demu leen euh, xaddiwu leen kon loolu effort boobu ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di leen ñaanal yàlla fu ngeen bëgg egg ci jàngam yi itam yàlla eggale leen fa mu des nag léegi ngeen duggaat beneen marxala beneen étape boo xam ne mooy jéem a ko yokk ba foo xam ne xëy na bu am njàng dul yam fenn nit bu ngeen fa àggee danañ xam ne def ngeen li ngeen war a def muy jàng mu kawe mi ñun lan moo tax ñu yem ci ñu tudd suñu bopp sax arabisant ñun waruñu sax tudd ay arabisant parce que ñun du ñu ay arabisant ay pël la ñëw ki séréer ki tukkulóor ki ay ay saraxule donc arab bi langue académie rek lañ ko war a defe comme li nga xam ne ñuy jàng nasaraan français dañoo jàngee ci français ñuy jàngee chinois ñuy jàngee ci anglais noonu nag li ñu ci amal solo mooy diine bi nga xam ne mënees koo jàng kon mën nañ cee jànge parce que diine yi suñu suñu diine la waaye nag bu ñu yemee ci loolu tamit dañoo war a dem ci li nga xam ne moom la ñuy defee ne scientifique wala lu jëm ci science loolu ci lañ créé université bi ñu créé ko mu nekk loo xam ne. xëy na xale yi ci bari duñ ko ci waaye lu jafe la lu jafe woon la fukki at ak juróom ñu ngi ko am léegi li bari ñu bari sax xamuñu ko ba léegi ndax ñu ñoo ne woon bu ñu publicité wante nañuy informé mi ngi nii rek moo gën a wóor maa ngi bëgg a def ak lii laay def ak fa laay defee nii laa koy defee parce que publicité dafa mel ne dafa xaw a jëm ci commerce te mën nga ko def ba noppi la nga wax doo ko mën te jàng dafa sérieux ndax mbir la moo xam ne mbiru xel la mbiru xam la mbiru nit la. loolu moo taxoon lu bari ñu bari biñ joxee diplôme licence ci la ñuy xamee sax fii bu baax te moo nag am nañ ci ñeenti dëkk yu bari loolu ñu gis na kon xale yi bu ñu leen dimbaliwul dana metti ci ñoom ñu soog a carrière li ñu njëkk a def mooy centre d'excellence loo xam ne ñu ngi ko tàmbalee woon dakaar boobu faculté boobu ma ngi foofu ñu ngi jàng lu jëm ci lépp lu jëm ci lu jëm ci technique am na fi ñoo xam ne seen licence xëy na moom itam danañ ci jot ren ñu tàmbalee ko foofu def naa ne am amit dana leen jottali yenn détails yi ñu dem ba mujj ñu wax gouvernement bi nag ni leen fokk ñu am université université ndaxte fekk ñoom itam ñu xaw cee am jafe-jafe ndax xale yu bari ku ne xam ne ne seen ba seen jàng ci bitti lañ ko doon defee Sénégal daf ci def ay bourse ba noppi njàng ma tamit ñoom ñoo la koy ñoo lay définir la ngay jàng da am fu ñu lay limité duñ nangu ñaare nga dem ci lu jëm ci science wala nga jëm ci lu jëm ci technologie loolu lépp it ñu gis ne xale yi léegi si ak fi jamono bi toll ñaw nañu ba noppi itam jumtuwaay yi bare na boo xam ne mën na leen a may ñu dem te bu boobaa ñoom ñoo jiitu sax ñi nga xam ne dañoo yemoon ci njàng moo xam ne njàngu àdduna rek la koy tuddee li njàngu àdduna sax amul ak njàngu lépp jàng la rek te yàlla moo sàkk xam loolu moo tax ñu daal di koy tàmbalee foofu liñ ci njëkk a tàmbalee mooy dakaar centre Dakar bi def naa ne si ñi koy kilifa yi ko yore ñu ngi fi mu nekkoon lu jafe ndax mu mënuñu woon am diplôme boo xam ne dafay diplôme bu technique la boo xam ne ñun ñoo koy signé kon état foog mu bokk ci loolu fa lañ tàmbalee ba yàlla def ñu tàmbalee BT BTS ginnaaw bi nag lañ soog a wax gouvernement bi ne il am université ndax moo ñu tax a jóg. ñu soog a ubbi université def ko ay kulliyaat dañu leen ko wax fii mooy kulliya al ulum diine wal insaani wal xadaaraat fii mooy mooy waaye yi ci des ñoo ya ci des fu mel ne Bambey mooy ziraa la ak fu mel ne Dakar yooyu yëpp ay ay ay faculté la te lu ma bala may sori sax ma gën leen cee ñaax danañ ci gën a waxtaanaat ndax kat yéen dañ dañ doon tudd ay arabisant nga xam ne bañ ne arabisant rek mooy koo xam ne xawma lu ñu ko mën a firee ñoom ñoom daal seen kon ni ñu koy firee ñoom mooy koo xam ne rek bokkul ci dara waaw te muy te muy lu lu erreur boo xam ne kenn xamul sax lan lay lan lay mën a teg xëy na tubaab yee ko fexe dugal ko ci yenn bopp yi loolu moo tax ñun bi ubbee rek ñu tàmbalee foofu jànkonte ceeg nag lu metti nag ndax fukki at ak juróom ñu ngi ci yii du tey rek fexe ba ubbi ay faculté yoo xam ne dafa jëm ci léegi yéen ñi ci nekk xëy na dañ leen jox yenn information yi képp ku ci génne ci diplôme yi fi amee ñee ngi liggéey ci banque yi ñee ngi liggéey ci yeneen société yu mag yi ñii am nañ seen entreprise bopp ko tax a sos nag mooy fexe ba téye leen amoon téye sunu sunu sunu sunu sunu sunu culture téye sunu aar lu baax ci sunu aada téye sunu diine téye it sunu bopp waaw bañ a dugg ci di roy kenn wala nga dem fenn jël fa koo xam ne la muy lay wax sax gëmu ko ñun du ñu dugg ci yooyu fii boo fi nekkee dañ la jàngal sa xam ak sa diine boo noppee nag nga demal sa bopp fii amul ku ñuy wax murit baag tijaan baag xaajal baag nangam nangam ñun xamuñu loolu fii toxu ko jóg liñ bëgg daal mooy nit ki jàng am xam-xam te gëstu nag te la may wax ne bu jàngantu nag jàngantu mooy indi problème yu bare jàng tuuti daal di defe ne xam nga lu bari foo gis ab aaya firil ko sa bopp foo gis ab addis boo xam ne lu kenn xamul nga indil ko teg loolu bu bu leen ci bokk yéen ndaw yi bu leen dugg ci yooyu xam leen nag lu ngeen war xam rek xam leen ko bu leen gàtt gi kon li nga xam ne mooy objectif université bi mooy loolu fexe ba dëgëral leen amoon ci diine ak xam-xam ba noppi nag am sa jikko ju baax am sa comportement boo xam ne foo dem kenn du la fa yàpp ndax ñi ci jot a génn ñëpp nekk ay chef de ci barab yoo xam ne ay nasaraan kese lañ fa doon jàng sax ñooñu fañ fu ñu ci dem rek daanaka ay kilifa lañ fa te kenn yebu leen parce que tey dañ seen diine tey nañ seen bopp bopp xam ngeen ne bu njëkk ku mosaan génn day dem léeg la gis ngeen ko génn dem ñëw di indi ay xalaat yoo xam ne yow ko koy xalaat sax moom je maîtriser bu ko bu baax bu ko defee yow boo ñëwee dugg ci di saboote kii di fa diine fee ñun diine kenn du ci saboter nit diine li ñuy dafa dafa nekk loo xam ne lu gëm-gëm moo koy taxawal nit bu gosee gëm bu dugg ci gëmu keneen parce que kooku moom rek moo ko mën a gérer moom yàlla kenn warul dugg ci gëm-gëmu nit di ci wax wala nga ca def moo tax fii boo fi ñëwee danañ la jàngal ba xam sa diine xam sa bopp bàyyi la nag ak sa bopp bul nekk nekk lii nekk lu yëpp ñun duñ dugg ñu ci yooyu ndax loolu du doxinu sëñ sëñ Tuubaa du doxin mag ñi sax ñoo am ñu woon boobu jot te gis nañ ne xalaat yu bari mu ngi dugg ci mi ngi dugg te loolu lépp ñàkk xam rek moo koy waral ndax defe naa ne nit ko xam dëgg-dëgg am na yoo xam ne sax jaru ko jaru ko fi te léegi yi matériel la koy waral wala xam ñu firi la ay téere firi boo xam ne doo xam sax ban firi la bu ko defee yéen ngeen moo tax may wax ne na ngeen jàng jàng bu baax ku ne xam ne nag diine euh, mooy li ñuy wax xoriyatu diin fi masalati l wa damir la ikra fi diin qad tabayyana rushd min al ghayy diine kenn du ci forcé kenn moo tax problème bu dëgër boo xam ne boo ciy xalaat nit ki lu mu la wax boo da ngeen yéen xam ngeen jàng ngeen xam ngeen addis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit daanañ dem ci guerre ci guerre yooyu bataille yooyu ñu daan def nit dem bañ tiim koog jaas yi mu ne euh, ashhadu an laa ilaaha bi nañ ko bàyyi ku ne xam na ne boobu laa ilaaha illallaah sériewul mais yonent bi amul sañ-sañoon na ginnaaw tudd na ko duutul jeex la ca biiram ndax loolu yoonam nekku ci moo tax képp ko wax laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah yam leen ak foofu moom nii nga ko waxee dugg nga fi yooyu day tardeel nit rek te ku xam diine doo ko defee noonu moo tax al masalatul al xurriya ci ci ak damir ak ci imaan kooku dafa sérieux bu leen dugg ci di débat yooyu ñàkk fayda yooyu euh, fu ne ku nag xam nga ne établissement bu ñu koy fii jàngatu la fi xam lu ëpp ñeent fukki ñi fi nekk ñëpp jàng nañu mais doo ci gis kenn ba jar jàpp ne sax xam na parce que xam-xam saa boo demee ba defe ne xam nga rek booba booy boo nga dem daliwaat waaw mooy ku egg ku defe ne egg nga te départ goo yàlla na ci yàlla musal moo tax xam-xam kenn du ko nangu am saa bu nekk nag war wutal rek euh, loolu moo tax euh, ñu gis ne nag kon université fii ñi nga xam ne mooy université li ñu bëgg mooy ku fi ne bul dugg ci yenn détails yi mouvement yi nga xam ne extrémisme moom ay fii laa bokk ak fële laa bokk ak nii la ñuy defaat yooyu jàngal diine ba kenn du la ko gën a xam rek yow ndax diine yàlla yàlla moo ko wàcceel doomu aadama nit war koo jàng am na ci lu bari nag loo xam ne dañ ko wéer ci ay nit nga xam ne seen xalaat lañ ciy doxe seen te boo xasee gëm yàlla gëm ab yonentam gëm lim lañ liñ la war a gëmloo mais libre nga ci sa gëm-gëm bu boobaa ku la ca mën a xëcc da la ca orienté mais laaj ko wala nga seet ko yow na nga ko gis parce que gëm-gëm bi rek moo amoon solo kon nag nii nga koy defee ak naa nga koy defee kooku dalee tardeel te bu leen ci dugg yéen xale yi da leen di wax ju bari rek waaw te wax ju bari jaru ko foofu moo tax Euh, dañoo bëgg ngeen defe doxee noonu euh, ku fi ñëw daal na nga xam ne fii néew bu fi kenn tudd na waaso wii laa bokk waaso wala laa bokk fii laa dugg dama doon wax sax xos dugg fi ci ci envie bi ci fii ci xorma bi waratuloo nekk boo dem séeréer sax booy boo nga làkki tukulóor wala nga làkki bu amatuñ problème mu lii la ak lii la parce que liñ ci jublu mooy boo fexee sa dugg nit nga yéen ñëpp ngeen nekk benn nekk ay jullit fexee am xam-xam loolu mooy wax waaye dugg naa fekk naa nga bokk ca Moridia naa nga bokk ca Tijaan nag dëgg la yooyu nag kër yooyu nag moom dañ ko fi war warmaal moom lañ fee warmaal nag bëgguñu leen rax fi ndax xam nañu bu baax fu ne dugg nañ fa ñun xam nañu bu baax bëgguñu yéen ñu du leen ci dugal ci ay détails l'essentiel moo am solo pour yéen mais bu leen dugg ci détail détail baaxul baaxul ci xale baaxul ci ndaw dalay duggal ci ay wax rek kon lépp lu ngeen di xool xool leen ko ci alxuraan ak sunna mag ñi fi nekkoon amuñu benn jafe-jafe mosuñoo sax dugg ci di campagne di kaay bokk ak man ak loolu ku ko def rek sa bopp yàlla kenn du ku xam yàlla xam ne boo ca amee cër di ca wut ay ay ay ay ay ay ay di wutal sa bopp ay client wala nga di wutal ay ay ay militant kooku du du pour yàlla kon ñoom loolu yitteelu leen woon li leen yitteel mooy nit ki tegee ci xam-xam jub gis ngeen mag ñi fi nekkoon defe naa ne ba ñu fiy jógee kenn amu ci woon ñaari nit ñooy àndal sax sa kër gis ngeen ko benn Cheikh Amadou Bamba dama koy def exemple te suñ tuddee Cheikh Amadou Bamba nag jàpp leen ne du ca génn mbàkke mbàkke déedéet du loolu Cheikh ñoom ñëpp noonu lañ doon doxee te su jàngee tuuti ba gis da ngeen gis lu loo xam ne sax ñun duñ leen ko wax mosu ñu am problème ñoom mosuñu am kër gi lu ko kenn ku ci nekk seq nga ak sa moroom loo xam ne yow mi koy wax yow sax boo demee ba ci biir da ngay rus sax ne wala lu tax coow li bu ngeen di coow yi nga xam nag da nga koy dégg léeg-léeg nit ci rajo di wax wax yoo xam ne xamu ca dara waxal sëñ kii dugg na fii par parloo goo xam ne yooyu bu leen ci dugg yéen jàng leen xam seen xam ku ngeen dégg muy wax ak njaaxum xam leen xamul wala ngeen génn ci boobu wax bu ci dugg loolu moo tax fii xasee nekk amul benn kuy dugg ci lii laa bokk ak bu leen ci dugg ci yooyu jàng leen am am am am am am jàng seen xam-xam bu ko defee euh, moo tax ñu def ne shaar bi ñu wax mooy euh, jàngukaay la yoo xam ne pour xam-xam la waaye du pour ay parti du ko ay par parlo du ko ay kër du ay ay nit du ab kuréel loolu tax koo jóg kon nag ngeen teel ko xam ndax fii mboolem étudiants yi fi ma sa ñëw yépp ñun xamuñu ci xam fu ne la nit di jóge kon bu ngeen fexasee ñëw nekk leen benn nit ki muy li leen tax a jóg rek ngeen wut ko mooy jàng seen diine am seen yar am seen xam-xam bu leen dugg ci ay wax bu leen dugg ci fexe it li ci desit mooy gën a góorgóorlu nag ndax kat loolu xëy na danañ danañ ci amit danañ ci waxaat tuuti muy fexe leen ba li ñu doon wax te am nañ ko ñun léegi bu dañ doon wax boo nekkee kii am nañ ci ay ingénieur ñee ngi ci banques yi di liggéey te bu bu bu moo tax ma li leen wax bu ngeen demee ba ku ci liggéey ci entreprise nekk chef d'entreprise nekk nitu diine yéen seen waaraate bu mu boo ko bu ma euh, saxaal rasulullah sallallahu alayhi wasallam baax na yar alxuraan déedéet mais waaraate scientifique ngeen di def maanaam lépp lu nga gis ci diine jàngal leen ko càmbar ko ba mën caa jariñ nit ki nga xam ne sax bu ca bokkul woon sax dana xam ne diine am na njariñ bari na ñuy tari diine ci jàngale loo xam ne kenn du ci xam dara moo indi coow lu bari li waaye boo bu fekkente ne def nga sa sa sa sa sa sa bu dee conférence gi ak lu mu mën di doon wala diine nga soxla ñu la ci def loo lépp loo cay génne na nekk li ci diine alxuraan la ak sunna alxuraan ak sunna lépp ngi ci biir waaw mu nekk loo xam ne scientifique waaye tari tari bu ko defee foo noppee rek mu ñu génn ci wala keneen ñëw tari leneen safaan ba wala mu firee ko neneen loolu da leen di tardeel rek mais boo nekkee boo defee loo xam ne lépp ay da ko teg ci scientifique ku ko mënul dana la bàyyee loola te ki koy waxee ci loolu lay mën a ci lay mën a dégg kon yéen itam na ngeen ci góorgóorlu xanaa euh, xanaa gudd na ndax kiiwul euh, daanaka daal euh, pour gàttal loolu la li ci des rek mu gën leen a ñaax rek muy. xale yi jigéen ñi góor ñi gis nañ leen yéen itam jàng leen ñu ngeen jàng li ma leen di wax di ko mujj rek mooy bu leen jàngantu jàngantu baaxul mooy xam tuuti defe na xam nga lu ne loolu mooy indi coow lu bare bare bare koo gis muy coow euh, rek xamal ne wax bu bu bu wax jotee na nga wax waaye coow pour coow moom bu leen ci dugg waaw ko defee loolu amul góor amul jigéen jàng leen ba am li ngeen am dana leen leeral faculté yi nga xam ne am nañ ko ak li nga xam ne gis nañ ko te lu matul ay fukki at ñu egg foo xam ne muy UNESCO muy ISESCO am na benn benn jamiat islamique yi nga xam ne mën nañu ñett téeméer ak ak lu topp ñun membre lañ ca nga xam ne kenn ku nekk ci yéen tey diplôme bi ngeen di amee fii dafay diplôme boo xam ne bu international la moo xam ci Sénégal la léegi fu ngeen de di demante fu ngeen taxawee diplôme bi état ko signé ak ñun du loo xam ne ay diplôme bu ñuy signé rek te état du ceeg nay dem rek egg rek ma egg ak samay kii rek sëñ bi ñu naan léegi xaw a kii tuuti rek ñu de du loolu jàng kenn du ko tricher ah, kenn du ci dugg ci loolu jàng boobu moo tax ngeen yàlla may na leen chance boo xam ne ñii nekk ci seen ginnaaw amuñu woon boobu chance parce que seen ci biti lañ ko jëlee bu ñëwee ñu deen yóbbu di leen former ay école normale ak dugg parce que état bi mënu leen wax ne mënu ma reconnaître diplôme bi mais li mu leen mën a wax rek jël leen concours ngeen dem école normale mais la ko ca intéressé du diplôme ba parce que mënu ko def ndax diplôme du ca génneem ñàkk a xam ne kii dafa jàngul déedéet waaye dafa am ay normes ak ay charte yoo xam ne mooy tax kii ne lii laay tax ma nangu ko ndax lii ak lii ak loolu rek la différence te loolu lépp yàlla dimbale leen ba loolu amatul léegi kon nag yàlla na leen yàlla sàmm dalal na leen jàmm yàlla leen yàlla may jàmm ngeen xam ne fii li taxoon tey ndax dañoo waxoon ne ñi nekk Dakar ak ak ñi nekk Bambey ak ñi nekk seen louis ku nekk fa ngay escrow na nga ñëw tey waaye defe naa ne bu ñu ñëwoon tey dañ fi xaj ndax defe naa ne ñi fii rek ñoo ñëw ginnaaw bi nag moo tax ñu bëgg ñi ci xam ne xale yi nga xam ne dañu leen waxoon ne nañ ñëw dem ba waajal ko bëggoon wut ay kaar ñu gis ne dañoo bëgg fenn fu ne ñu far fa demal suñu bopp ginnaaw fu ci nekk université ak ma faculté nga fa mën nañ faa daje daje yu mel nii bu ñu demee mën a waxtaan ak ñu inscrire foofa bu ko defee def ko Ndar def ko Dakar def ko Bambey noo ñu ñoom ñu ma tayante déplacé wu